asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 14 mai 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb la leewtoo point net ba ci su a waaye li leer ba leer daal sunu làmb moom tey Mouhamed Ali moo fa xëy li olof yi naan daal ku ràcc jëmale sa kanam day dëng lool dafa mel ni nag loolaa am ndax nag na seen diggante kii nga xam ne nii day moo di booy ñang moom Mouhamed Al daal nee na jàppal li leer ba leer day nii moom munu faa am te bu ko fa kenn xaar booy ñang daal bu nu sa yeggee moom dina xam ne Lac de Guiers numéro 2 du moroomam Mouhamed Ali mooy wax nee na day jàpp leen combat bu gaaw a gaaw a gaaw ngeen nar a gis bis bu nu yeggee mois de juillet Mouhamed Ali wax ba tey de mooy nag menaceru kii di Lac de Guiers numéro 2 ba pare nag nekk tamit enseelito fa nga xam ne moo di écrit waalo nee na day booy ñang moom na ko leer moom ñi mu àndal ne du ñoom ñoo ñuy empêché wala daal ñu tërale na nelaw wala ñu di leen tërale dox seeni soxla wala nelaw ba yandoor dañuy nelaw sax ba yandoor Mohamed Ali moo xëy di wax loolu nee na tamit li leer ba leer nañu ko xam ancien yi nga xam ne ni ñoo nekkoon ay ancien mbër ay ancien champion nekk écrit waalo ñëpp fi nekk yi daal dugg nañ ci bis bi mu mel ni ki daal ab soto lañ ko fas yéenee def rek kilifa yooyu jóg bu moo xam ginnaaw la kanam la mbéj ak ngàdd ak lépp daal ne na fasuñu ko yéene bàyyi moom daal booy ñang dañoo fas moom ba nga xam ne day bu ñu fi jógee dina xam ne kulli xamee naag Diallo Mouhamed Ali mooy wax keneen koo xam ne nii moom mu nga xëy tamit di wax raaj jëmal sa kanam mu dëll daa mel ni moom la xëy di defal boppam muy Paala Diop Paala Diop nag mooy manager kii nga xam ne moo di Reug Reug nee na Reug Reug day na leer giri doo ne ko day la ñu defoon Elton lu ko koy def dañu ko koy bëreloo ba mu xoox ñu daan ko jël bu rëy rëy rëy loolu mooy wax ki nga xam ne nii moo di Palla Diop ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu lamb waaye yemu ci la nee na rëg-rëg sax li tax fi nekk nii day li simple bi gisatuñ ko ci nee na licence am nag maa ko téye ngir mu bañ a participer ci benn tournoi ngir waajal digganteem ak kii nga xam ne nii moo di Gris 2 loolu mooy waxi Paal Diop moom daal jàpp na ne day pare nañu depuis ci weer yi nga xam ne nii moo paase woon waaye Gris daal moom jàpp na ne moom lu metti mu ngi koy xaar moom Paal keneen boole nag di lig Nicolas moom dafa mel ni fi mu nekk nii day def na loo xam ne nii day ah daa mel ni daal rafet na ba yegg ci lool ndax nag sunu làmb muy xamante ne nee na lig Nicolas nag lii nga xam ne ni daal mooy téléton moom la organisé pour le vingt cinq mai lam ci jublu nag mooy dimbali kii nga xam ne nii moo di booy bambara wala keneen koo xam ne daal yeyoo na ko loolu la Ligue Nicolas def leneen loo xam ne tamit Ligue Nicolas fas na ko yéenee def ca làmbam ja wala ca vingt ans ya mooy Pa njaay Ndiaye photographe bi ngeen xam ci làmb ji yàlla na gudd fan te wér Ibrahima Sarr bi nekkoon wala boog bu CNC ak raay ba nga xam ne itam moog Ligue yàgg nañu lool Ligue nag ca làmb ja bu ñu ca yëggee dañu fas yéenee daal décoré mu mel ni ki daal loolu mooy li nga xam ne nii sunu làmb xëy na tey dinu ko wax keneen koo xam ne nii moom ay bëgg-bëggam la xëy samp di ko wax mooy xaarim gajaga wala sunu lamb xëy dinu ko wax ci xalimaak Abdoulaye Dembélé mu mel ni Rock Énergie nag le 19 mai bi ñu jëm day dañoo fas yéene def nag li ñuy tudd assemblée générale defaraat bureau ba daal falaat ay nit xaarim nag moom jàpp na ne day président la bëgg a doon daal day présenté wu ngir jiite li nga xam ne nii moom moo di Rock Énergie waaye jamono jooju ma koy wax nag ñu naan Cheikh Sow dafa nar a bàyyi Cheikh Sow ci Leewtoo.net moom weddi na loola ba mu set wecc nee na bu ko ko kenn waxal tey suba waxi noppi moom ay naaj ak ñeneen ñoo xam ne sax ñun ñuy xamal ca Leewtoo point ne ñaar lañ ñoo xam ne day bëgg nañoo jiite écrit booba nga xam ne Modou Lo ak énergie te Modou Lo ne ca bopp ba mu mel ni kon jàpp leen ñeenti candidat ngi moom boo xam ne nii parcelle la muy daam seen daam nag xëy nañ di ko laaj daam ne na li leer ba leer day moom daal bu amee koo xam ne nii mooy mbërëm mu mu préféré wala ku muy roy mooy Ousseynou numéro 2 bu écrit face daam seen xëy di ko wax Yékini moom génnoon na fi fan yi di wax waaye Seydou Fall ma nga xam ne nag mooy menacé nekk ci écurie Ndakaaru day mu ngay wax ne na Yékini daal la mu wax waxam yooyee moom la engagé waaye ñoom seen ab écurie moom jàpp ne day nekkul ci catu saako tey ab turu suba waxi ñoom daal ñu ngay doxal ne na jàpp yegg na ba ci sax nee na moom Seydou Fall mbër ya nga xam ne daal ñoo génn écurie Ndakaaru ne na ñoom ñooñee kay ñoo génn écurie ba ne ciy jafe-jafe waaye seen écurie moom mu ngay dox bu baax a baax a baax loolu waxi kii nga xam ne nii moom moo di Seydou Fall la waaye dañuy continuer dem fa nga xam ne moo di Leewtoo point net source a ak Leewtoo TV ñun ñuy xam ne nag Zoss day fi nekk nii sol naw dàllam moom daal li mu bëgg mooy mbirum mayam deret ak jàppale ñi nga xam ne dañuy faatu ngir ñàkkul deret Zoss nee na loolu dafa war a jóg ci réew mi ne na loolu dañ ko fee war a jële nee na nañu gëm suñu bopp nun africain yi jàpp suñu ak bopp ay africain da am fulla ci suñu bopp lii nga xam ne nii moo nu war nu xam ko taxaw ca ngir suñu Afrique gi avancé rawatina réew ne na daal leer ba leer moom mbirum deret bii dana ci taxaw xar ci tànku tubéyam nag ñu koy joxe nan ko war a joxe zos moo xëy tey di wax loolu nga xam ne nii mooy ay waxam ci yëglikaay yi nga xam ne moo di Leewtoo TV Leewtoo point net Source A ak sunu làmb waaye li am ba des daal jàppal Taala Njaay loo ci mën a dégg zos démb war na am conférence de presse wax na la mu bëgg waaye li ma xam ba xam ko daal mooy day ah olof ne na ku yokkul yaa wàññe xëy na moom bàyyi na lamb ji bëgg naa yokke ci beneen côté kon sos yoon waa ngongu doxalal yàlla nañ ci jële ndam ndax nag luy tax réew mi yokk wala Afrique yokku moom ku koy xeex dañ lay ñaanal jàmm waaye Talla Ndiaye koor gi mbaa xam nga ne tey la juróom-ñetti fan Talla mbir maa ngi xëccu di dem de yàlla na jeex ak jàmm korite gi ñëw te nga préparé say ginaar xaw ma nag looy ndogoo looy woree yow Talla ay koor gi tey la am juróom-ñetti fan mu mel ni ki daal fi mu nekk nii mbir maa ngay dem de waaye daa mel ni daal lu muy gën a dem rek gaa yi di ko gën a yëg waaye loo ci mën a dégg daal juróom-ñett moom juróom-ñeent cay tegu fukk ñëw bu ko defee nag muy dem di dem a dem yàlla na jeex ak jàmm te yàlla buur bi nangu ko taala njaay siiri lébu asalaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen ci seen revue de l'arène comme ni koy defee chaque jour ma si ànd ak Babacar sama mag sama xarit chéri te nañ Babacar nuyu naa la. kanam gi kii de nu mu noonu maa ngi lay fay di la nuyu waa chéri te bi waa boobu di bëgg naa ci waa di la nuyu di di ah comme ni ko waxee rek. jàngat bi ak ki nga xam ne mooy Mouhamed Ali d manager Lac de waaye tamit mun nañ ne mooy directeur technique fi nga xam ne écurie Waalo la moom nag ñëw na ci combat bi poulain am di waajal nag te di ko ñaax bu baax parce que nee na combat bi moo nar a doon combat bi gën a gaaw ci saison bi te képp ku nekk Waalo rek Babacar dina ci andi sot ci combat bi ñuy waajal <laughs> ah, ci sot la bokk waaw Olof Ndiaye ne tamit courage jëmale sa kanam mu dëll comme ni ko waxee moom mooy manager bi en même temps mooy directeur technique u écurie bi nga xam ne mooy écurie Waalo tey nag su xëyee di wax si Lac de ne combat bi day gaaw loolu xëy na comme nit ñu bëri dañuy wax ne Lac de Guiers 2 ay combat am day yéex te man gis naa ne ci yéexaay boobu xëy na lim lim ciy jublu pour man mooy que moom da dul bëgg bëre ci lu nga xam ne ni leeru ko maanaam lu muy action bu muy def rek da koy bëgg togg ba mu ñor wala bu ñoree mu doog ko nangoo def xëy na moo tax yenn yooyu di am ci moom ci biir combat euh, comme ni Mouhamed Ali waxee nag que ni a ngi ci seen ginnaaw di leen jàppale mu yëkkati wàllug ñëpp te mbir bi jaral na leen loolu defe naa mooy li war a am ndax nag adversaire bu toll ni Boy Niang mu bëgg a dugg ak fi mu dugg ci biir ci seen biir bëgg di jàmmaarul lag moom leneen li ci des nag mooy que ni xam nga làmb moo mel noo xam ne nii moom ah dafa dafa nekk lu yéeme yéeme gi mooy tey communication bi nga gis ni ñu koy mëne avant combat bi non du waa combat kumpa laa ko tuddee comme la ma la rek laa lay continuer di la wax combat combat kumpa ñaari mbër yooyu seen combat boobu muy Lac di Boy Niang waaw combat kumpa la parce que fu mu toll nii moom daa mel nit ñi ñemewu ñu joxe pronostic 100 pour cent jëmale ko si kenn parce que ñoom ñaar si seen style préparatoire xaw na nduroo ba tey ndax tey la ñuy demee ñu dem si keneen koo xam ne tam Babacar mi ngi encensé mbërëm muy euh, paala Diop moom it euh, daal di ne kii nga xam ne nii mooy rëg-rëg bu jour ba dina sonal ki nga xam ne mooy Gris 2 bëriloo ko ba mu xoox daan ko jëlu bu rëy defoon ci Elton <laughs> waaw waaw ba tey ba tey rek ñu ngi ba rek loolu li li nga ci mën a jàngate mooy rek euh, ki nga xam ne nii daal moo yor mbërëm xam na naka lay entamé làmbam Palla Diop Pikine la dëkk di menacer yore rëg-rëg di rakku Pape Diop Boston kon defe naa moom xam na la mooy bëri yaa ngi dégg la ñu defoon Elton nag ba ñu demee ba ci biir combat ba xam nañ ne bés boobu lool la laajoon ñu def ko yàlla may leen jëndam mooy bëriloo ko ba ba mu ba parce que temps boo jeexoon na yaa ngi dégg mais yàlla def rëg-rëg daan ki nga xam ne ni moo di Elton tey ñu jëmaat si Gris 2 muy combat bu dangereux bu nga xam ne combat bu doy doy waar la parce que li ko waral mooy ñaar ñu daanoogul lañu ba pare di ay mbër yoo xam ne ci ay gox la ñu ne muy caaro yi di faas ku ci nekk fa ngay jóge ñu ngemb la yaakaar la kon nag bu loolu amee ah, bis ba dama naan du yomb comme ni ma ko waxee nag ne dañuy bëreloo Gris2 ba mu sonn ñu daan ko loolu ba tey li ma la wax rek si communication bi muy ñëwaat rek parce que làmb maanaam naxante la li Père Max Mbargane di bu ñu la séentoo fit fitalal bu ñu la séentoo fetal nga fit loolu moo ci am da ngay signaler gauche jàdd droite bataille de communication bi dee ko ci xaar naxante ci wàllu ba bisu làmb ja mais réalité giw ba nag moom mooy li nga xam ne nii mooy li nga xam ne nii mooy na mooy nar neex ndax di nga ñëw bëgg a bëre combat ci temps bu mu gaaw yaa ngi ci ci temps bu gaaw mu mu far yàgg nga bëgg ko bëri ci temps bu yàgg mu gaaw lépp mën a nekk parce làmb li wax rek du biir tey xëy wasin quoi mais ñoom ñaari champion yëpp daal ku ci nekk bés ba suñ ca yeggee ku daan sa morom rek dama naan mérito nga ko muy Gris 2 Reug am na lu ñu wane doon xale lañ ba ñëwee si làmb ba tey waaw. dañuy jógee ci combat yi Babacar dem ca écurie Rock Énergie ñoom ñuy waajal seen AG le 19 lay doon Euh, incha allah 19 mai mais nag fu mu toll nii candidat yëpp signalé wu nañ parce que ñii ñi ngi nen Khadim Gadiaye mu lañ présenté mais Cheikh Sow nee na fauteuil bi tamit da koy défendre ba tey parce que dafa bëgg toog ci li nga xam ne mooy présidence bi te di ñu xamal tamit ba tey ci leewtoo point net que am na yeneen candidat yoo xam ne signalé wu nañ ba tey pour fauteuil rock présidence rock énergie bi Babacar waaw loolu day tant de année wala at ñu ne ah renouvellement bureau jot nañu def agi loolu la rock énergie bëgg a def rock énergie nag fan yi seetlu nañ ay wax yu bëri di jóg ci staff bi ba ci tëggkat yeeg ñeneen ak ñeneen loolu nag xëy na bu ñu waxtaanee xay na moo tax ñu bëgg a def seen AG pour falaat bureau xoolaat ni ñuy doxalee Khadim Gadiaga nag bu ne daf ko bëgg a jiite dañ ko koy nangul parce que li tax bëri ci écrit ba ba bëri jiite fi association des leaders en activité ba xëy bàyyi nekk kon loolu mel ne daal daa mel ni écrit boobu ah fi nekk nii li ñuy wax rek bu doon jaawale tan jar na ndax ñeenti daa ngi taxaw ku nekk bëgg ko jiite li ñu leen di xamal nag wala di leen ko ñaanal mooy que ni loolu nga xam ne moom la ñuy def mooy AG yàlla nañ ko commencé ak jàmm mu jeex ak jàmm ba nga xam ne nii ki gën ci écurie ba mu jiite écurie ba waaw parce que ku laaj bañ jox la pour nga war a jiite Aysatu na nga góorgóorlu ba bu ñu la joxee ña la dénk nga laaj ba ñu dénk la na fexe def la tout pour satisfaire leen boo mënta def 100 pour cent tamit nga def la maximum ba nga xam ne daal lañ doon xaar ci yow dinañ ko gis ci yow keneen koo xam ne tamit euh, mi ngi xaar ci nit ñi ñu def acte Babacar muy ko euh, Nicolaï moom le 25 mai incha allah la fas yéene organiser li nga xam ne mooy téléthon pour ki nga xam ne mooy père booy Bambara boobu léegi feebar tëral ko Luc Nicolaï tamit fas yéene si bay waara moom it def téléthon pour képp koo xam ne loo am rek nga dimbalee ko ki nga xam ne mooy père Boy Bambara. waaw loolu dañ koy rafetlu ndax olof Ndiaye dañ ne daf ne Aïssatou taal bu tee tàkk fu ne lañ koy uppee. yaa ngi dégg parce que Père Boy Bambara yàlla dogal na mu nekk mbër nekkoon si nekk si làmb wane ci boppam bàyyi bëri di encadrer ay mbër ba tey école de l'itam ñu gis fa ay champion yooyu ku mel ni ki caat ak yeneen mbër ñoom Tafa Boy Bambara ñu ñëpp mu doon loon encadré indi si làmb yàlla dogal lii dal doomu aadama muy feebar dal ko ah bi mu ko dalee tamit nit ñaa ngi koy taxaw waaye nag comme li lii li mu bëgg a def ni defe naa dafay nekk loo xam ne ni dina gën a am doole te am nañ yaakaar ne dina gën a nekk loo xam ne nii mën na ànd ak réussite kon ñu ngi ñaan yàlla daal initiative boobu Luc Nicolaï jël yàlla na ku réussir ak jàmm maa tamit dañ ciy lancé wala appel sénégalais yëpp téléthon boobu Luc Nicolaï lancé ku ci ne na nga ci dugal sa loxo ak foo mën a ne yéen ñuy suivre nekk bitim réew ak ñi nekk fii ku ci ne ci participer ngir lan bañ a xeeb joxe ngir booy bambara wala sax ngir wala sax ngir ñeneen yaa ngi dégg mais Luc Nicolaï daal encore une fois initiative am day rafetlu naa ko trop man Babacar te yaakaar naa ku nekk war nga ko rafetlu ndax dimbali koo tane ci jaamu yàlla la bokk kon Luc daal loolu mu yéene yàlla na ko yàlla mottali ci Boy Bambara Boy Bambara itam ñu ko ñaanal yàlla wéral ay cëram mook bépp doomu aadama bi nga xam ne yaa ngi tëdd feebar ñi ci kaso yi tamit di yàlla génn leen fa ñu dellu seen sago ñu tëdd ci suuf tamit yàlla na leen yàlla yërëm te xare barke weeru koor yi waaw Babacar amin rek la ñu mën a teg ci ñaan yooyu noonu waaye dañuy dem si keneen koo xam ne tamit mi ngi ci def ay initiative sauver ay vie muy kan muy Zos si moom la ñuy jeexale Zos euh, moom it ak association bi nee na fas yéene na tey xeex li nga xam ne nii mooy ñàkkum deret yi nga xam ne dañ koy constaté ci banque de sang yi muy woote nag nit ñi def ay don de sang lu bëri te ba tax na nee na fas yéene na si euh, dox ay jéego yu mag nekk ambassadeur li nga xam ne ni mooy don de sang ba association bi tey mu doon loo xam ne day international Babacar waaw jos loolu tamit mooy li ñu la waxoon sànq rek comme ni Ligue Nicolas def noonu rek dimbalante parce que don de sang moom defe naa tamit jaamu yàlla la ah, lu am am solo la kon jos tamit initiative boobu mu mu jëlee am na solo ndax it du nekkul nekk da ngay bëre ba bàyyi bëre rek dem toog sa coin mais boo bàyyi bëre sénégalais nga africain nga war nga mën a am loo servir sa réew xëy na moom taxawaay boobu la bëgg a amee ci réew mi amee ko ci Afrique ñu koy ñaanal mu réussir ko ah don tamit lu am solo ndax ñi sot ne ci hôpitaux yi soxla nañ ko yaa ngi dégg nit dana def soog soxla deret am na wasin keneen nag xam nga deret daal dañ koy soxla tout le temps te ci ñun lañ ko mën a jëlee kon nag ku ci nekk rek ñu ngi lay ñaan nga di ko faral di ko def di dem di def don de sang sos tamit di ko ñaanal initiative am boobu mu jël ak partenaire bi mu ci àndal yàlla na ko réussir ba nga xam ne daal lépp dina doon njariñ parce que tamit Aysatu lu dul baax baax ko gën yàlla nañ yàlla xiir ci lu baax di ko xalaat di ko def te yéene ko ku nekk tamit te di ko digal ku nekk loolu Babacar la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñuy suivre Leewtoo TV li leen di andiloon seen revue de l'arène mais balaa boobu damay nuyu Mame Talla suñu Baye Fall bi Chéri Lébou TV yëpp ñoom moo maane Chéri TV yëpp bàyyi ñu bu mag bi ah di la di la ñaax nga bokk si si groupe si groupe bu marié Babacar di béggee képp koo xam ne rek yaa ngi suivre Leewtoo TV Touré ñoom nogay depuis Italie Mado du ma la fàtte Amar Gueye sama yaay sama borom kër képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy safoo Babacar am na solo comme noonu nga ko waxee tamit équipe Leewtoo bi duñu leen fàtte Talla Ndiaye bu lebu ñu ngi koy nuyu moo ne si caméra bi xam nga du mën a ñàkk Ousmane montage bi xam nga moom moom maa ne ba moom tamit waaw di ko nuyu bu baax a baax Baye Fall bi ak yàgg mu Cheikh Béthio Thioune yàgg ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaalewaat encore une fois li ñu bokk muy Cheikh ko te jégal ko barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais di nuyu ñu ñuy ah fu ñu mën a ne ay kilifa yoo xam ne te dañuy suivre ku mel ni sëñ di ko ziar di ko wax ne ko daal ah euh, amuñu fayam ñu ngi sàkku ñaan gis nañ ñaan yi ak jàppale yi ñuy jàppale ak seetaat bi ki tamit Serigne euh, Ablaye Diop xaas moom tamit di koo xam ne daf ñuy baax xel bu baax a baax ak Serigne Cissé mu sëñ kër si di nuyu tamit ñi nga xam ne nii ñoo nekk bitim réew ku mel ni tuuti yaay Sarr Espagne Khady Rose Ndiaye xam nga Benzema dem bàyyi saal depuis Paris ñoom Ndongo Fall gaa yëpp ñu ngi leen di nuyu mbër yi nekk foofu ñoom Saazu Ndiaye xam nga Sentel Basoka sama doomu ndey di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy ay satu di nuyu tamit ñu nekk fii ci réew mi te di ñu bëggee rawatina nag chef John Sina nekk groupement mobile d'intervention ñu leen di wax semi nekk ca camp Abdou Diassé ma ciy profité di nuyu waa bi yëpp di leen ñaanal jàmm ay satu di ko sàkku ci yéen Père Birahim Ndiaye tamit ñu ngi koy nuyu ndax daf ñuy bàyyi xel chaque jour di wax ne daal jàmm ci la lépp xaj yàlla nañ ko yàlla defal mais Rimka Couture du ma ko fàtte sama doomu nday séeri nday borom Touba Sandaga lu rafet loo gis ma sol ko ci yére rek jàppal ne moo fa jaar mais kenn du aas mbaay goro taala Njaay ca Espagne ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp di balu ñëpp ak waaw Babacar ci lool la ñuy joxe dig daje ñi euh, ñi seetaan suba incha allah